asalaamaaleykum mbokki internet yu SBT Média point com amaan nañu mbégte ak kontaan te ñëwaat fii seen émission nay riir tey nag nay riir la bu spécial ndax kii ñu dalal moo toll ndax xale la boo xam si ni macha allah miin ngeen ko ci SBT waaye miin ngeen ko ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi lu mu dugg rek génn ca la ca def tey nag ñu ak moom ci li nga xam mooy actualité tabaski bi xale jigéen ñi ak ak seen dugg dugg ak seen i génn ak seen copains yi ak rawat na ñi nga xam ni donte moom nekkul sax amagul sax borom kër waaye maanaam eh, diggante borom kër yi ak ak seen eh, soxna yi macha allah ci tendance bi ak sañse yi ak yooyu noonu des na ko waxtaan si biir émission nay riir ñu dalal ki nga xam moom moo di Aïssa Boté Aïssa Boté ñu bàyyi la nga nuyoo Euh, salaamaaleykum waa Sénégal waa àdduna ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar di leen baaluwaat ak di nuyu sama lakkal bi maas di ko naan borom le 19 daal di yomb incha allah dinañ ko wàccee ba mu zéro kenn du moom ci man. Mhm. tey ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Aïssa Beauté te xamuñ ko mooy kan ak fu Aïssa tur Aïssa Beauté fu mu jógee boo ko doon leeral lan lay doon. waaw Aïssa Beauté moom Aïssa Beauté mu sëriñ Babacar simple et tout bëri jàmm bi dama doon defar ay savon et tout. may essayé su ma defaree mu baax léegi cliente yi di ma naan beauté beauté ma ne pourquoi pas du ma def Aïcha beauté loolu indi Aïcha beauté bi. saabu yi nga xam ne danga koy danga koy créer ak euh, say affaire yi nga xam ne danga koy def pour pour maanaam jeeg ji euh, di si di si bëggal seen ay borom kër seen ay alaaji aas. Euh, waaw damay defar ay karité ay lait kii ay lait chocolat et pour jeeg ñi daal ñooy sama xarit man. Mhm. mooy xaritu jeeg ji. waaw may xarit jéeg ji de <laughs> xam nañ lool ci man. Mhm. ok yan xeeti karité ngay yan xeeti karité ngay fabriqué. waa karité yu baax rek ànd ak menthe cristal et ay lait ay euh, chocolat yu saf yoo xamante ne moom koo ko jox bu ko utiliser pour jëkkëram lu mu ko laaj dina ko ko jox kayitu kër sax dina ko ko jox bu jour baax. bopp nga xëy diw sa karaw bopp nga xëy diw wala fan nga xëy. mënuma ci wax bàyyil ba am jabax mais ñi ma koy jaay xam nañ fuñ koy def. su ma déggee carte carte moom dama koy diw sama góom bu may fekk damaa am góom may sangu ma diw ko si pour bañ ma kii wala ma diw ko sama bopp a <laughs> am na qualité pour bopp am na qualité boo xam ne pour bopp waaw foofu daal laa mën a dama dugal. yow carte bi ngay jaay pour bopp la wala du pour bopp. am na deux façons qualité boo xam ne pour bopp la am na boo xamante ne pour ñuy sëy la. Mhm. nga ciy jaay laa bëgg a xam. ma ñaar yëpp. yëpp laay bi da ngay jaay beneen boo xam ne pour sëy la. bu ñëwee ma ñëwee ma jaay la ñëpp samay xale lañ. kon naa su ma mooy xaritu jeeg ji ak célibataire yi. ñëpp samay xale lañ góor ñeeg jigéen ñi xale yi ñëpp samay xale lañ. Mhm. seen émission nay riir la SBT Média wala ma leen di wax ne abonné leen ngeen bës seen tous kolos notification euh, bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen man di si ànd ñun mais Aïssa Beauté lan moo tax ñu gëj laa gis. maa fi rek jàpp sama njàmbu di liggéey. Mhm. comme liggéey dafa xew ñu toog liggéey rek bu fo jotee ñu foo et tout. tool yi dégg nga ko fan yële na la si ginnaaw far nañ ci yow béykat yi euh, sa boob nga xam ne moom mooy Ndirangu arrestation bi dañ la ci jàppale woon nan nga ñu mën a expliquer ak naka nga def ban bàyyi la. non jàppale buñ ma woon parce que gis naa ñëpp di ma woo affaire bi xewee naan ma Aïcha ndax yow la yoon mais du man deew ma woon sax beneen Aïcha la woon du Aïcha bii ay Aïcha bi ku ko xam mu ngi ko xam ci Aïcha beauté Aïcha savon sa leneen mais pas dem ay yooyu non non non. sax xarit la. <laughs> non duma ci wax mais kenn ñaanalul lool nit parce que sa noonu sax doo ko ñaanal prison mais ñu ngi koy ñaanal euh, mu jóge foofu noonu ci barke Serigne Babacar du yàgg dara incha allah. est-ce dem nga seeti ko. ma seeti ko nag. Mhm. mais yow lay xaar ñu ànd nga yóbbu ma. xam man moom rangu man dama koo gis ci ci ni ko ñëpp yi gisee rek laa ko gisee ci réseaux sociaux yi ak yu man xaw ma ko mais yow mi nga xam ne rangu sa xarit la ñëpp xam la sa nga xam sax xel yëpp dem ci ne ne nga ne du yow donc tey xam nga ko ndax interview yi ngay def teewlu bi yëpp yaa rangu la bu ci génn xam nga ko bu baax man man rangu mosunoo jàkkaaroo nii man ak moom mosu ma ko gis jàkkaarloo ngeen jàkkaarloo ngeen assumel rek waa bu ñuy dem ñooy ànd incha allah mu ngi noon seen émission nay riir la SBT Média ak ñu daal ki nga xam si moom moo di Aïssa Boté dégg ngeen li nga xam ne moom la leeral ndax fa yee réseaux sociaux yi nit ñi dañ ma sa xarit bi dégg naa dañ ko jàppaale ak xam si nii moom moo moom moo di moom moo di rangu mais gis ngeen ma naar naar yaa ngi nii ngeen li mu xam ne si moom la leeral léegi nag su ma génne fa li ma bëgg ñoom mooy tabaski bi cool yi xale yi góor yi xale yi jigéen yi cool yi bëri dëkk bi temps yi rëm na de waaw rëb na moom rëb na torop mais li may conseillé samay xarit et samay copines samay sœurs et ñu def lu leen yàlla jox rek parce que nit ki moom li nga tollool ngay def mais bu bëgg a loo xamante ne amoo ko da ngay sa bopp ma gën a jaaxal mooy célibataire yu jigéen yi ñoo gën a bëgg ray xar lu mu demee noonu. ah bëgg sag rek ñëpp bëgg a teral seen yaay et tout sagu xam nga ak statut yi mais da ngay def loo tolloo rek boo amee yàpp sax rayal yàpp kenn du ko xam. Mhm. mais mu mel ne que yéen yéen maanaam fan actuellement ni yow nii Aïssa euh, maanaam sa sa xar man na wala sa xar matagul. ah ba ngay waxal <laughs> na ma yóbbul sama yaay et tout. Mhm. ci yow béykat da ngay ñoo xam nee nañ sax yow sàmba alaar nga xar yi ngay maye am na say famille yoo xam ne ñoo ko gën a mérité te te faale woo leen. <laughs> man ku ma xam xam ne sama famille may number one man ñoom ñoo tax may sonn ñoo ma dooleel et tout. ñoom xam nañ loolu sax loolu du débat. Mm-hmm. du débat de. ki ma wax ki ma wax ki ma wax moom moom leer na ma ne xam na la moom ki ma wax moom xam na la nee na ma Aïssa day jënd ay xar di ko maye te xaram yooyu muy jënd di ko maye am na ñoo xam si ne ay famille lañ ñu ko gën a jege te ñoo gën a mérité xar yooyu noonu. bul dugal kenn ñoom duñu wax lool parce que ñi ma jege yëpp mu bëgg macha allah dañ ma sopp ñoom lu ne laa leen di defal du ma toog sa di ko wax mais ñoom xam nañ ñoom ñoo tax may sonn ma koy waxaa ñoom xam nañ lool ci man sama xar mot na bu yàgg bu ma toog di xaar leneen ñi ma jox nag dañ fekk ñu war ko jot parce que wërsëg moom boo ko amee danga nga koy bokk ak ñëpp pas pour yow kese parce que yàlla mën na la may nangu ko may ko kooku noonu kooku mën na la aider loolu moo tax. Aïssa fu mu jëlee xaalis bi Aïssa fu mu jëlee xaalis Aïssa euh, maanaam kañ la fi ñëw ak Aïssa kañ la fi kañ la fi yore yenn koppar yi bay mën a jënd ay xarak ak yeneen ak yeneen. liggéey gëm rek ak ñaani waajur. booy jaay gerte caaf te nga am ñaani waajur ak yàlla et tout day dox mën nga ci am ay millions man ko moo xam xam ci ay savon ak ay boutique te ñaan yàlla muy yokk et gëm rek liggéey. Mhm. ma sa boutique bi euh, wërta mën a li nga yor nii si xaas sa boutique sa boutique waru ko mën a génn. bien sûr ñoom gis nañ boutique bi gaa yi dañu def va et vient dugg ko génn xam nañ gaa mi du lu ndaw de ay gaam quatre vingt mille cent mille cinquante mille du lu ndaw. Mhm. gaa mi sa boutique ñaata la Euh, quarante mille mais actuellement dañ ko def en promo pour tabaski bi cinquante mille kii la yam trente mille. Mhm. ñu seen émission nay riir ñu daal ki nga xam si ni moom moo di Aïssa Beuté ci SBT Média wax leen wax ne abonné leen euh, ngeen ba seen tous kolos notification mooy nuyu nag sama benn euh, xarit sama benn jigéen muy kura ba nekk fële yi Italie madame Silla maa ngi koy nuyu de passa di nuyu nag sama jigéenu bop nday deer madame deer fële ca ca Belgique mais Aïssa fi ma bëgg ñu taxaw fi mooy coow li nga xam si ni fan yi dégg nga ko mooy actualité euh, politique bi réew mi toll waaye réew mi ay kilifa yoo xam si ni euh, maanaam ñunu xam lan ñu respecté lañ ci réew mi ay parce que mën naan la euh, maanaam ñetteelu bi nga xam si ni moo gën a rëy ci réew mi parce que bu ñu waxee président wax président assemblée wax vice président assemblée muy Moustapha Sylo coow li fan yi dégg nga ko jëruñu siy ñëwaat mais naka nga jàngeelu en tant que jeune en tant ndaw ëllëgu réew mi di ko jàngat comme ñëpp rek parce que ñu ko nit ñi xalaatee rek laa ko kii saaga yi ma mënu la ñàkk mais man comme man du ma suivre yooyu mënuma ci dara franchement mais nañ wax daal ñu rafetal parce que xale yi nekk seen ginnaaw ñoom la ñuy seetaan si ñoom lañ bëgg a roy et tout ñun ñëpp si ñoom lañu bëgg a roy ñu ñaan yàlla daal ñu bàyyi lu ñuy def. Mhm. noo gisee ëllëgu ah, ëllëg baa ngi ni toog seetaan comme ñëpp parce que kenn xamul kenn xamul moom man moom mënuma ci débat tëgg fa yàlla parce que du sama affaire. Mhm. non non maa ngi sama liggéey sama savon et tout naa la ma tallu ma sax télé du ma seetaan sax télé. Mhm. force yooyu booy ñu ne am na si ñoo xam si gars yi nekk si ci kii bi am na si ñoo xam si ni ah taarkaal dañ fay jaar. xaw ma si kenn xaw ma ci kenn aw ma sax ku ma dooleel xaw ma ci kenn. Mhm. nee naa la savon yi sama xarit ak sama yaay jeex na. Mhm. bëri ci ma histoire dëggu rek xam nga boo dëggoo nañ na da nga bëri histoire ak bañ ki la yab loolu kese la mais may loolu man amu benn problème du ma jàpp dara. Mhm. da ngay xuloo da ngay xeex ah da ngaa gaaw a mer da gaaw a gis sa bopp am na ñu bëri sax nee léegi da ngaa ah, meloo woon nii mais léegi da ngaa yëg sa bopp que da ngaa yor as wecce tuuti affaire yooyu noonu. ñu ma xam-xam ne euh, yëgu ma sam fréquentation sa amuma ko aw ma sa xarit. gis nga bi nga ñëwee sama kër gi soo fi kenn aw ma xarit aw ma fréquentation ba ñu wax yenn sama yaay mooy sama xarit xanaa ak sama ami d'enfance yoo xamante ne su ma demee Kaolack dinaa leen gis et mais man aw xarit ba ba ñu naan dama bëri yëg sama bopp et sama liggéey ñibbi si kër gi. Mhm. jël si la ak euh, SBT Média seen émission nay réer sa émission bi nga ko defee après coow li bëri noo ko dundee metti rek parce que c'est la première fois ma def ko coogi ba ñëpp di ma woo et tout mais gëm rek parce que bi ma leen woowee ngeen defal ma si laa toogaatee muñ xam mais ah nee nañ ko bëgg daal yaay muñ te ñëpp ñu leen di coow ñoom ma Marichou ñoom waa ñëpp gis nga lu ñuy wax asuma ah, man nga xam ne defaguma fi dara mais muñ rek gëm. Mhm. am na déggoon nañ sax ne am na ñoo xam ne ñu ngi la doon woo di la menacer et tout ça. mais ah. <laughs> ñoom la concerné daal parce que nit ki moom looy def gëm ko nee naa la ba mu waa ñaani waajur jarul looy ragal ma ragaluma ginnaaw yàlla Serigne Babacar Sy laa yaakaar ragaluma dara man. Mhm. seen émission nay riir SBT Média ma leen di wax ne abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen ma di si ànd ak ñun mu mel ni que fan yële euh, sa xarit El euh, Hadj Keita macha di ko félicité di ko wax remercié euh, mu def mariage bu rëy mariage bu toj ñëpp doon fa xaar ay sa beauté ay sa gisuñ ko fa la moo waral loolu. waa dama amoon malaise moo tax maa ngi koy ñaanal ndeysaan message naa ko woo naa ko dégg na li ma ko wax ne naa ko maa ñaanal yàlla may ko ay njaboot yu barkeel ndeysaan nit ku oyof ku baax samay wax ci moom mooy loolu nag gis sama anniversaire nu mu ci sonnee woyal ma te joxuma ko dërëm xoolu xaalis ci man xoolu dara ndeysaan kenn du moom mais dama amoon malaise moo tax demuma ñëpp ak may laaj nag mais dama amoon malaise moo tax. si ku baax rek. <laughs> ku baax lay xaar du jot yomb jotagul. ku baax ku mel ni kan ñu baax ci ñu bëri nañ de. moom bëri na moom parce que ñu dina am ñu lay topp gaa mais da nga du gis loolu doy daal su ma gisee lu ma doy rek dinaa sëy incha allah. sëy moom jaamu yàlla te sëy euh, neexut sëy jaamu yàlla sëy neexut est-ce que est-ce que est-ce que nekkul ne da nga yaakaar ne boo amee jëkkër dalay baare ci yenn kii ak yu mel moo tax bëggoo ci du parce que nag taaru jigéen Aïssa dañuy wax dëgg taaru jigéen sëy la de. waaw taaru jigéen moom sëy la mais bu jotee dinaa sëy su am na lu may xaar daal. xaar. Ah, jëccër gi naa sëy léegi yàggatul léegi tey rek. Mhm. danaa gis koo xam ne da waxtaan bu juboo wala lan la wala lan la. <laughs> doo ma dugal mais en tout cas maa ngi su jotee dinaa sëy. non man dugaluma damaa bëgg non non man damaa bëgg lu leer ndax danga am projet boo xam ne dafa am koo xam ne da ngeen waxtaan ba d'accord nga nga toog di xaar wala wala lan. ko fi nekk ndax jigéen la am na ko fi nekk moom bu jotee rek dina ma takk. ma maa mu xaar rek sama avenir lay xaar tuuti rek. Mhm. ñaar ngay dooni wala aaw buur këram wala ñetteel. bu mu ci doon rek bëgg naa. ki nekk am na wala amut. <laughs> non amagul nag mais bu mu am rek man bu ma am rek bëgg naa jaamu yàlla parce que man soxloo ma dara yi góor parce que maa ngi tedd alhamdulilah sant yàlla kon elif bi rek laay wut ak ki ma bëgg respecté ma. Mhm. en général damay dégg ñu naan euh, xale jigéen bu ñu yoree as xaalis tuuti rek euh, duñ duñ dootuñu nangoo sëy ba pare dañuy nekk di di di tàmm di dàqaate ba far ba far euh, li ñuy wax nu ñu ko naan tànnakatu daal ay carax lay mujjee. non boo gisee ñuy tànn parce que da ngay gis ñoo xamante ne dañuy gis nga yor ñëw dugg si yow juste que pour mbaraan la moo tax xale jigéen yi ragal mais du question dara ñu yor ñoo gën a bëgg a sëy parce que ñuy bëgg ku leen élif bëgg ku leen won yoon suñu jullit am ku leen di jiite et Thank you